19h euh, sur la télévision Futur Média nu nu koy defee saa su heure bi jotee moom mooy euh, soir d'info euh, tey nag li dal si ko presse bi ñëpp xam nañ ko mooy accident bu metti bi nga xamante ni waa Leral TV seen i suñu ay collègues ñu am nag ñu ci faatu ñu leen di massawu daanaka suñu kaw la dal waaye dal na itam ci kaw Sénégal ñu koy massawu itam njabootu ñi nga xamante ni ñoo fi jógee di leen ñaanal foofu ñu nar a jëm gënal leen fii ñu fii ñu jógee ci seconde partie bi nag euh, dinañ euh, dalal ki nga xamante ni moom mooy Khady Ndiaye Kama moom mooy présidente amicale ancienne euh, du école excellence boobu ñuy wax Mariama Ba ca gore xam ngeen ko école excellence la waaye dafa mel ni état bi da ca génne loxoom bu dul proviseur ba wala jàngalekat yi wala boog sax ñi nga xamante ne ñoo fa nekkoon doon fa jàng ba tekki dara ci réew mi tey ñoom ñoo dajale seen i xaalis dajale seen bopp. ba euh, école bi bañ a mun a naax saay moo tax nag ci kanam tuuti dinañ dalal Khady Ndiaye Kama mu ñëw wax ana lan la ñuy def euh, lan lañ def ci école bi li ñuy xaar itam ci nguur gi euh, plaidoyer bu am solo boo xamante ni dina ko def gannaaw le 20 léegi léegi dañuy dalal ki nga xamante ni moom mooy jiite SAEMS di Sawru Sène maa ngi lay nuyu bu baax Sawru. oui maa ngi lay fay euh, Diallo di nuyu aussi suñu mbokku téléspectateurs yi wax aussi comme ni nga ko waxee léegi euh, ci tiis boobu nga xam ne dafa dell la presse sénégalaise vraiment di leen jaale di ñaan yàlla mu xare leen aljana firdaws ma ni euh, yaa ngi jóge ci ci tournée mais mi ngi mel ni Sawru à chaque fois le problème de la sécurité routière nga ni ñu sommes en la sécurité routière chaque fois il des accidents yoo xamante ne dañuy wax sax ni on aurait pu l'éviter mais dafa mel ni amul surveillance sur nos routes ah n'importe quoi anarchie totale. mais tout tout à fait Binta wax ni déjà man je viens de voyage dama nekkoon ak euh, syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire ci région Sédhiou mais avant ñuy yegg région Sédhiou parce que ñu ngi waroon a commencer Bounkiling def euh, Koupentoum mais yoonu li la dalee Gambie boo génnee Gambie ba Ziguinchor c'est extrêmement difficile une fois de plus euh, le réseau routier sénégalais dafay am solo ñu gën ko xoolaat parce que toute la sécurité des des uns et des autres mu ngi dépendre ci réseau routier boo xam ne bu baax la en tout cas diggante euh, Sénoba ba Ziguinchor vraiment yoon bu metti la à l'intérieur aussi euh, région Sédhiou ben bëri na ay yoon yu bëri yoo xam ne mooy loolu am na solo kon ñu defar tali yi ndax bu ko defee euh, dundu doomu adama yi mën na mën a saafarawu ñu bañ rek di politiser ay tronçon yoo xamante ni à chaque fois euh, nee nañu ñu ngi koy inaugurer te toujours la situation et la même à l'intérieur du pays tali yi baaxul te tali bu baaxul xam ngeen ni euh, dafay propice à des à kon boog jot na ñu gën a jox gëdd li nga xamante ni moom mooy suñu d'ailleurs Binta bu ma ci waxul woon sax xam naa suma waa dëkk dinañ ma mere liy déree Sandiara ba Ndiaganiao mhm. ça yoon boobu c'est extrêmement grave mën nga def diggante Sandiara ak Ndiagañaw loo xam ne c'est à peu une vingtaine de kilomètres mais mën nga fa def deux de temps ci yoon waaw war nañ koo defaraat vraiment c'est <laughs> nañ bàyyi rek ay euh, effet d'annonce c'est vraiment defar li nga xamante ni euh, moom la so askan wi euh, soxla a Sène yaa ngi jógee yaa jiite SAEMS syndicat jàngalekat nga mhm. Sédhiou nga jógee lan ma waraloon tournée bi waaw tournée bi comme c'est une tradition enseignants du moyen secondaire à chaque année dañuy def le tour de toutes les régions du Sénégal te pourtant Binta tournée boobu mu ngi commencé depuis décembre. Mhm. parce que décembre ñu ngi woon Louga euh, janvier ñu ngi woon Saint-Louis février ñu ngi woon Diourbel mars ñu ngi woon Matam avril ñu def ko Dakar mais ñu dem région de Sédhiou te dañuy continuer mhm. li ko waral rek mooy syndicalisme du rajo rek ak télévision. Mhm. syndicalisme da dem safonteel ak ñi nga xam ne nationale xam seen situation wante nag seen situation jafe na trop ko ma commencé d'ailleurs par naqarlu lenn loo xam ne euh, du sax région Sédhiou mais boo jëlee tey li nga xam ne mooy inspection d'académie wu Matam euh, fii résultat yu bac yi gën a baaxe ah muy euh, Vélingara Ferlo mhm. professeur yooyu nga xam ne ñoo am les meilleurs résultats xam nga Matam moo am meilleurs résultats Sénégal mhm. Vélingara Ferlo ñoo am meilleurs résultats mais ci baccalauréat bii nga xam ne ci la ñu génne mhm. mais ñoo ñu ba léegi kenn fayu leen seen déplacement au bac te résultat fu mu baaxee rek xamal ni professeurs yi am na loo xam ne lu supplémentaire luñ fa def ñooñu aussi seen i heure supplémentaire ba léegi kenn fayu leen ko alors que yi ñu nekk ngi jublu ci fin d'année ci bac alors que ñooñu seeni déplacement wu bac kenn fayu ko loolu ma encore wax ko ministère de l'enseignement supérieur problème boobu am Matam il est le responsable le ministère de l'enseignement supérieur euh, directeur de l'office du bac non mais malheureusement malheureusement xam nga président dafay joxe instruction mais instruction président il faut ñu wax ko mm. y en a de ces autorités là qui n'appliquent pas les instructions du président de la République mm. parce que nag fi ñu toll nii tey mm. bu dee ñi nga xam ne ñëpp d'accord nañ ni ñoom ñoo am meilleur résultat aux examens ba léegi nag loolu ñu def tax ñu am les meilleurs résultats kenn mënu leen jox ndàmpaay yooyu qui ne représente pas de montants importants mais loolu xam nga c'est frustrant te loolu encore une fois de plus enseignement supérieur mooy responsable fi ministère de l'éducation nekkee mbir moomu mooy heure yi nga xam ne def nañ ko ba ndongoy am aussi seeni lijaasa je crois que le DAGE du de de de l'éducation nationale aussi mm-hmm. loolu nga xam ne ay heures supplémentaires la mais war na ko xool très rapidement pour que te du foofu kese je crois que globalement par rapport aux examens du bac mm-hmm. fépp foo xam ne rek nekk am na fa balaa ñuy wax lu prochain bac il faut que rek gouvernement bi góorgóorlu pour régler yooyu. waaw ndax bor du am rak. Euh, euh, yaa ngi si seen biir tournée bi euh, nee nga dégg ngeen lu leen ci naqari aussi. benn bi moom mooy. jàpp nañu la la date des examens sans yëgal leen ko. boobu déjà. Mm-hmm. lan moo ci sa avis avant ñu ñëw li ci li xew Rufisque. waaw xam nga examen wu bac bi. Mm-hmm. dañuy wax ni rek. le, la concertation autour de toutes les, les questions de l'éducation ne signifie pas une cogestion du ministère dafay wone rek ministère bi dayo bu mu am waxtaan bu mu laaj te damay fàttali li xew nii depuis le mois de d'octobre bu ñu demee séminaire de rentrée question yooyu yëpp dañ ko abordé d'abord li ñu amoon comme mébét mooy que ñu xool comme année bi dafa nekk année bu particulière ñu jóge ci mbas dañu war a fexe xool naka la ñuy dindee vacances yi comme ça élèves yi jàng directement ñu ne leen déet vacance nag def ci bokk mébétu ministère bi c'était que ñu xool est-ce que fête dina am ren. ñu ne leen fet mënul ñàkk parce que c'est déjà pédagogique waxuma la rek ci professeurs yi wala enseignants yi de façon générale mais ci xale yi déjà fête boobu boo ko ci dindee rek ça peut les porter préjudice euh, psychologiquement. ñu ne non il faut mu am beneen élément bi nag mooy leur calendrier scolaire. te ñu jàppoon déjà année scolaire bi. commencé wuñ ko octobre ndax novembre lañ ko commencé te biñ ko commencé novembre tamit dañ wax ni mois de novembre ak mois de décembre day nekk mois de révision. kon ñaari weer yooyu bu ñu nekkee mois de révision année normale bi mu ngi commencer janvier. bu waree commencer janvier nag nga bëgg a tenir des examens à date issue c'est-à-dire le premier juillet ñëpp mënoon nañ xalaat ni loolu war na mën a poser problème. Mhm. loolu moo tax c'est vrai que reculu date bi au niveau du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire cela ne nous a pas surpris et je dois le dire pour la vérité bien avant que gouvernement bi di jël loolu dernière réunion secrétariat permanent bi ñu gisee li xew Ndiaganiao par diplômés d'un bac blanc ñu interroger certains de nos collègues à l'intérieur xamoon nañ ni quand nit ñi am nañ difficulté pour terminer les programmes loolu moo taxoon moi j'avais reçu déjà instruction du secrétariat permanent pour xool est-ce que ñun du ñu demander à ce que ñu xool naka la ñuy réaménager sauf que maintenant là il y un problème non pas seulement que il n'y a pas de concertation tout autour mais moment bi ñu ko jël xam nga euh, une bonne gestion c'est une gestion en général qui qui fait dans la prévision li ma wax bu njëkk te ñu waxtaane woon ko Sali wone na ni moment boobu bu ñu xooloon intégrer cette donne la waroon na mën a permettre ñu am un calendrier boo xam ne du ñu yegg si ba cappaandal ga ñuy chercher reculer waat daal gënoon baax pour examen. non fu gënoon baax c'est-à-dire euh, quoi qu'on dise entre le premier et le vingt-neuf question de vingtaine de jours la de cours juillet oui. du mois de juillet mhm. c'est toujours dans le mois de juillet Absolument. mais xam nga liñ ci ŋaññi au niveau du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire c'est pas que ñu reculer la date mm -hmm. mais waroon nañ mën a entrevoir cette possibilité là def ko à temps parce que le problème qui se pose mooy que nit ñi bu ñu nekkee dynamique def dara rek nga indi coupé day indi rupture te loolu ça pose problème mhm. alors que on en général gouverner c'est prévoir tout le monde connaît la situation de l'année scolaire et je le dis et je prends le secrétariat permanent du SAEMS en témoin, moi j'avais reçu instruction déjà d'aller dans ce sens pour poser ce problème-là parce que quoi qu'on dise aussi ñun école moo ñu ñor nekkuñu dans la politique politicienne dañuy jàpp li nga xam ne moom moo mun a permettre suñu école mais mu nekk une école de la réussite une école de la réussite nag c'est des enseignants des enseignements apprentissage qui se tiennent correctement et avec des programmes yoo xam ne maximum possible dinañ ko def pour. mais est-ce que euh, justement est-ce que def le maximum possible ba élèves yi nañ dem aux examens. waaw xam nga cette année aussi. Euh, Binta ñëpp gis nañ ñëpp gis nañ. jàngalekat yi cette année. Mhm. kenn mënu leen wax bougé nañ. Mhm. te pourtant ils avaient mille raisons. de bouger pour la bonne et simple raison non seulement fi ñu toll woon ci 2019 ak accords yi foofu la ñu toll ba léegi ensuite euh, li nga xam ne au moins waroon na mun a am durant cette année scolaire bi nga xam ne c'est une année totalement calme mais c'est des rencontres entre gouvernement et syndicats dans la dynamique du monitoring des accords mais même loolu amuñu ko te pourtant génn ñu génn jàngalekat yi comme pour dire tout simplement que cette année encore une fois les enseignants ont prouvé aux Sénégalais tout leur tout leur patriotisme bu ko defee nag bu ëllëgee par rapport à ce que je viens de dire absence totale de matérialisation des accords absence totale de rencontre entre le gouvernement je ne parle pas du ministre de l'éducation mais entre le gouvernement du Sénégal et les organisations de l'enseignement kon léegi dama bëgg a xam ndax xale yi jàng nañu lu jar mën a dem examen ba mais bien sûr jàng nañ ko ah, mais bien sûr bien sûr sauf que maintenant mhm. bu ñu bu ñu demee comme ni niñ ko waxee jusqu'au 29 mais loolu aussi dafay permettre jàngalekat yi surtout ñi yore classe d'examen ñu gën a renforcer seeni élèves préparer leen à l'examen du baccalauréat du brevet de fin d'études de des moom ak ak ak bi du jeex. Mhm. Euh, waaye dañuy ñëwaat ci beneen actualité bi nga xam ne moo xew Rufisque gis nga li fa xew. Mhm. Euh, examen blanc ci 20 lycées Rufisque am na fa euh, sujet anglais bi ñu ni ci mbirum góor jigéen. Mhm. lañ ko lañ ko lañ ko joxe. mu doon un grand tollé. Mm-hmm. Euh, yow déjà. muy muy encore lu ñu naqarlu. Mm-hmm. loo xam ne mënuñu ko nangu mënuñu ko comprendre non plus euh, wax ni rek euh, gis nga. Mm-hmm. lépp loo gis. xëy na am na racine. damay fàttali Human Rights Watch am na benn moment mu def un faux rapport sur le Sénégal je dis bien un faux rapport parce que def di rapport boo xam ne c'était pas objectif. maanaam. Eh, dañ jëloon région Sédhiou Kolda Ziguinchor. Mhm. jël fa un total d'environ quatorze établissements. Mhm. avec quelques vingt neuf élèves. Mhm. def des enquêtes sur la sexualité wax ni. élèves yi li ñuy dund dans les écoles sur ce plan au Sénégal c'est inacceptable je dis que vous ne pouvez pas prendre une raison naturelle mmh. et généraliser mënoo jël benn région wu Sénégal ak 14 élèves sur plus de 4 millions d'élèves mmh. ne da nga def un rapport sur le Sénégal mmh. c'est inacceptable rapport manque d'objectivité ñu jóge ci loolu ñu ñëw ñu ne UNESCO dafa am séminaire bu mu war a tenir ak ministère de l'éducation partenaire sociaux fekkee ko muy séminaire u Saly ñu commencé di wax sur l'introduction de module de sexualité dans ci secteur éducation ñun ñu taxaw ñu ne loolu mënul nekk parce que école moo war a nekk la gardienne de no valeur loolu xel xalaatul ñu nangu ko ñu jóge ci loolu tombé ci sujet boo xam ne mais benn xale bu homosexuel la di expliquer à sa li nga xam ne mooy ni baax ci homosexualité ci dëkk bu mel ni Sénégal mhm. mënuñu ko nangu mais loolu njuumte la la non gis nga <laughs> gis nga gis nga mhm. école lu sérieux la ah, école lu sérieux la mhm. man de sawru dama jàpp ni fépp fu dee dañuy fo di def lu leen neex di saaga di xaste gis nga école moo war a rester la gardienne de nos gis nga suñu école buñ ko foowee bu yeboo ku nekk boo ma nee dem ay génn Sénégal génnal Sénégal nga dem kon loolu kenn waru ko seetaan épreuve boobu demale la ni bu mosoon am dans le système kenn ku ko gis nekk jàngalekat xam école rôle bu mu am dans la promotion de nos valeurs culturelles. Oui. sujet boobu à la seconde da nga ko waroon déchirer. kenn warutu ko woon lire. donc am na sa responsabilité. mais bien sûr responsabilité boobu nag foofu laay interpeller ministre de l'éducation. Mm. il faut que mu assumer sa responsabilité Absolument. dans cette affaire. Absolument. il faut que l'enquête révèle tout ce qui s'est passé ah pour que ñi ci war a sanctionner ñu sanctionner leen mhm. et c'est des sanctions qui doivent servir d'exemple encore une fois de plus mhm. je bien du ministère à à au à l'enseignant parce que moi aussi biñ may jox information yi man dama jàppoon ne xëj na mhm. mais bu ñu xoolee épreuve yi dañ gis ni lii la jotuñu ko jox xale yi parce que loolu j'aurais été dans un centre boo xam ne dama gis épreuve boobu keneen du ko gis ah. dama koy tayee ne leen lii du jàll. mais comme administré nañ ko ay xale. ba ñëpp composé ci. dema ne ministère de l' éducation n'a pas le choix. il faut que mu sévir et de la façon la plus exemplaire. gis nga bu ko deful. il a le G7 en face de lui dans cette affaire là. parce que nag ñu dañ am responsabilité bu leer dans le secteur de l' éducation dañoo jàpp ni les gouvernements passeront mais nous nous resterons avec notre système. Mm-hmm. je dis pour l' exemple Abdou ñu nekk fi dem na ñu ngi fi Abdoulaye Wade mu ñu nekk fi ici. Macky Sall, ce sera la même chose. Donc ce secteur-là est avant tout le secteur des enseignants du Sénégal. te lépp liñ ciy def dama ni xale bu sàccee ëllëg. wala mu am un comportement irresponsable mm. damay jàpp ni école am na ci responsabilité parce que école nag moo amee la responsabilité d'éducation de formation et d'instruction donc daal yéen yéen a ngi euh, interpeller le ministre mu situer les responsabilités mais bien sûr dans cette affaire d'une gravité boo xamante ne extrême mais bien sûr vraiment ce n'est les responsabilités beneen bi mooy euh, gis nañu xale yi tamit euh, vraiment ils sont devenus violents les élèves am na xale boo xamante ne nee nañu dafa dóor euh, professeur de philosophie am et tra xooj ko ba mu dee ca ca Kébémer la xewee xëy na saa yàlla def na dootul dee mais je vais te dire une chose non non non euh, violence <laughs> bi am en milieu scolaire waaw lu ko waral il faut que gouvernement au Sénégal hmm. parce que aussi école dafay progresser hmm. école buy progresser ngeen di réadapter seeni lois et règlements te li xew Kébémer mhm. élève bi nga xam ne dafa ñëw xoj son professeur te c'est une dame professeur bu mu xoj nee nañ ma ci ñi ko fekkee mhm. yeneen xale yi ñoo ñëw di dóor dóor ñenn ñi sax màtt loxoom pour mu bàyyi xam nga loolu c'est très loolu c'est très moo tax euh, la sécurité quand même à l'école pose aujourd'hui un réel problème. Et ce n'est pas seulement à Kébémer, hein. on a vu avec l'histoire des flashcards. boo gisee Thiès benn lycée suñu benn camarade boo xam ne ay élèves am ñoo ko def flashcard mais def ko dans les réseaux sociaux. Mhm. avec une image inacceptable. bu ñu jógee porte plainte. kan ma wax la bu ñu jógee porte plainte. bu ñu jógee porte plainte. ba procureur ñëw war a euh, les élèves là. waaw dame bi nga xam ne moom la ñu def loolu. moo ñëwaat di jooy ne no je pas été formé pour enfermer des élèves en prison. kon nañ leen libérer. kon violence bi xew dans les écoles. dafay jot ñu toog ak état wu Sénégal. Mhm. xool naka la ñuy sécuriser. l'école non violence bi. élève bu violent yow noonu fan lañ ko war a jëlee. mais mais xam nga aussi il y a quoi une liberté. des élèves des enfants par rapport à leurs parents. am na ay waajur yoo xam ne na ma yàlla baal xamuñu ci dara ci seeni doom ci lu ñu nekkee boo leen waxoon tey sax sa doom bi ban classe lay def mënuñu lu ko wax. kon ñooñu xale bi lu muy yendoo ak lu muy guddeel moom xamuñu ko. mais yéen itam am ngeen ci part de parce que bu yàgg ba sa élève sa professeur boo ñemewoo ko sax gis. waaw mais xam nga société bi mais xam nga mais xam nga Binta aussi. société bi léegi nag bu dee da ngeen di laamisoo ak élèves yi ak yi ñu ciy dégg ak yeneen non sauf que école. école mm-hmm. euh, le milieu dafa évoluer mm-hmm. xam nga dafay amoon ay jamono yoo xam ne comme ni nga ko waxee mm-hmm. élève sañul woon xool professeur ci bët mais dañ doon dégg dañ doon dégg dañ dégg dans des pays développés mais foofu aussi école dafa nekk un secteur boo xam ne professeurs yi parfois même dañuy yore seen gànnaay parce que bu ko deful ñu faagaagal leen bu dee nag dans des pays comme les nôtres aussi mm-hmm. situation boobu dafay développé il faudrait qu'on prenne des mesures par ah anticipation parce que oui oui ah oui parce que loolu loolu d'éducation bi mais justement donc liberté bi moo bëri tey mm-hmm. te liberté boobu euh, comme on le dit trop de liberté donne le libertinage et le libertinage est liberticide. donc, donc situation yooyu responsabilité qui est engagée ñun ñëpp ci war a dugal. mais mais d' abord celle du gouvernement. Oui. parce que nag gouvernement bi moo am ses agents. Ouais. et le gouvernement a l'obligation de protéger tous ses agents y compris les enseignants beneen bi mooy balaa ñuy jeexal euh, gis nañ ne lancé nañu ne dañuy dañuy euh, recruter 5000 enseignants mhm. euh, gars yi dem postuler sur le xawma si si fil sur le fil oui on a eu plus de 100 000 sénégalais yi ñëw 150 000 oui même pas des enseignants cela veut dire quoi ça non ñi postuler ñun dañu waxoon dafa am ay jeunes sénégalais yoo xam ne. dem nañu def formation ba am diplôme professionnel. pour l'enseignement. ñooñu d'abord nañ leen privilégié njëkk leen jël. bu ñu jëlee ñooñu ba pare parce qu'ils sont déjà des enseignants mais qui mm-hmm. n'étaient pas recrutés. ñu xool nag ñi des. Mm-hmm. ñi amul diplôme professionnel. ñu def un examen. Absolument. un concours. xool leen meilleurs d'entre eux ñu door leen dugal te waxoon nañ ministre de l'éducation aussi mm-hmm. commission boobu nga xam ne moom mooy def loolu yëpp il faut que les organisations syndicales soient présentes Absolument. pourquoi parce que école dafa am solo école dafa sensible donc mm. képp koo xam ne dañ lay tànn pour nga dugg dans le secteur de l'éducation da nga war a nekk quelqu'un koo xam ne wax dëgg un vrai éducateur ngay nekk loolu moo tax pour ñu éviter aussi un recrutement politicien mais ñu ne lép lu ñu ciy def mais il faudrait que les organisations syndicales soient présentes et que ñoom ñu soient les témoins de ça maintenant ñu ngi xaar ci cent cinquante mille ñi ñuy recruter waaw mais loolu moo wane ni rek la demande de l'emploi au Sénégal et puis il y plus parmi les 150 000 mhm. euh, postulants mhm. il y même qui sont dans les pays européens depuis la France postulés pour ñëw jàngale Sénégal loolu bu ñu la ko waxoon di nga ko gëm et pourtant ben c'est pour dire tout simplement la question de l'acuité de l'emploi dans nos pays et pour cette jeunesse sénégalaise qui ne veut que servir son pays xamante ne dañ ci bëgg a dóoraale xarmat am am liggéey fee am liggéey fii ah en tout cas li li am solo rek mooy mais est-ce que yéen ngi def exigence toujours ñu ñu recruter. dama leen non bien sûr non ñooñu moom ñooñu moom ñi am diplôme professionnel. maanaam ñi am KM. ñi am CAP ñi am KSM. Mhm. ñi am euh, ñi nga xam ne dañ am un diplôme mais d'enseignement. mais ñooñu balaa ñuy recruter kenn. ñooñu la ñuy njëkk jël d' abord. Mm-hmm. et ensuite maintenant. li des su def concours bien sûr parce que nous nous serons là. très bien incha allah merci merci Saourou. mais c' est moi qui vous remercie Binta et je salue aussi vos téléspectateurs aussi. merci très bien euh, dañuy dem publicité rek dellu si waat ci plateau bi.